Leewtoo la YouTube Equivox seen Dakar Buzz ak si ñëpp ah la Grosse TV ñëpp a ngi ñu ngi nuyu ñëpp di saa ñëpp ak Guédiawaye mm. waa Dragon maa ngi nuyu ñëpp fi teew di ñaanal ñëpp jàpp di ko sant ci li ñu dajale fii nag tey Fadel ak Arcel lenn la combat boo xam ne lu làkk woon la yaakaar naa ñu ko gisoon bëriwul mais nag yàlla dafa def ñoo xam ne ci làkk am nañu gis-gisu làkk ku mel ne Abdoulaye Ndiaye ànd ak production làkk ak ci loolu muy Abdou Diouf mi ngeen gis nii dëkk yu waatoo yaakaar naa ne tey mën nañ leen leader la ci Guédiawaye moom la ñu boole ak leader bi nga xam ne tamit espoir la ci biir équipe Fass waa Dieng production ñoom ñoo def loolu kon nag loolu yaakaar naa ne ñun tam ñu ngi yokk laam mais dañuy profité rek ñu nuyu Dieng di ko ziar bi ñaanal jàmm ak staff bi nga xam ne ñoom lañ liggéeyaloon ñëpp ñu ku nekk liggéeyal suñu nee Dieng production kenn génn li am solo nag mooy combat bi moom yaakaar naa ne combat la ci biir suñu papa ma la nga xam ne moom mooy bàyyi góor maa ngi lay nuyu bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla guddal ci ak Abou Ndour bu ma ko nuyu nuyu naa ñëpp ñaan ñëpp di jàmm ah Cheikh Faye laa gis maa ngi lay nuyu yow tamit di nuyu képp fi teew daal di nuyu tamit hôtel bi nga xam ne fi lañ ñu dalal tey mm. parce que li yaakaar naa ne dafa nekk loo xam ne nii tey gën a tax làmb gën a nooy ak hôtel arc xam ne fi la ñuy féeroo nekk fii ci làmb ñu ñëw tey ànd ak ñeentoo de euh, Patrice Patrice jaarama lañ lay wax Patrice merci beaucoup parce que tamit may nga làmb tey dafa xam ni soxla nañ ko. kon yaakaar naa ne daal làmb moom ca kaw ca kanam rek lay war a mën a def ñun ñëpp ñu si jàppale si kàddu yàlla baax na Fadel maa ngi lay nuyu baax a baax borom Dakar di wax ne que daal Gris 2 am na ci lu mu jógee li mu jógee yaakaar naa taaw na matagul at yàggul diggante ba Reug Reug ñëpp ne woon mooy favori yàlla def outsider ba outsider ba tànn maa ngi jéegul yaa ngi dégg parce que bi ñu koy booleeg moom nit ñi dañ ne woon Reug Reug man da daan ci Reug Reug gis nga làmb pour ñu leen ñëw si Reug Reug daan ci mu leer naa ngi ab ñu fi tamit bëriwul daal ak bi mu mujjee bëri muy daal ji moo ki mu mujjee bëri muy ki nga xam ne nii moom mooy. Forza Forza bu Fass Forza da daan kon moom Fass la mujjee waaye miin na Fass nag ndax su ma juumul est ce que mooy ñeent wala juróomi bi ñu daan na Fass laaj daan deux daan na Malick Giri Giri de mii toog muy Giri Bordeaux kon maintenant Forza commencé daan Fass ci li ñu xam kon yaakaar naa moom fa mu jëm daa mel ni miin na fa xaw ma nag yoon dañu daan bu kii itam yaakaar naa ndax moo ko booyoo am na fu ñu jaar ak jaagar jaagar te lépp ci kon mel daal laat yéen juumu ngeen daal. Youssou Ndour waxoon Aziz Ndiaye ne ko juumoo mais laat juumu ngeen ginnaaw bu mu la nuyoo ziar la ñaanal la jàmm laat ku lay xalaatal ak kan moo lay jox inspiration ba lu làqu nga làqal ci ko génne ko pour sénégalais yi gis ko. Mhm. waaw euh, asalaamaaleykum ñu ngi nuyu assistance bi teew fii yëpp di santaat yàlla bu baax euh, di wax ne alhamdulilah ñu ngi gërëm d'abord presse bi yëpp parce que ñëw nañu en parce que tey lu mel nii bokk buñ ko taxawalee ñëw gis presse bi ni ñu taxawee moo lay wan ni combat bi am na dayoo bu mu am waaye loolu lépp nag. d'abord le PDG sunu xarit sunu frère muy jëy production xëy na sax bala ñuy pare dina ñëw d'ailleurs dafa amoon léegi ay gan yu mu waroon a jëli yu wàccoon démb mu jógee aéroport mu war am rencontre bu ndaw bu muy def ak ñoom yàlla mën naa dogal bala ñuy pare mu ñëw loolu moo indi empêchement bi nii. xamante ne moom mooy xamante ne Gris 2 loolu la wax képp koo xamante ne mës na daan Gris 1 moom incha allah dana def képp laay àndam pour daan la ndax yaa ngi bàyyi xel ci loolu yaa ngi bàyyi xel aussi ni xale la boo xamante ne dafa ne am xamante ne euh, si la nekk après mu ñëw ci Gris 2. allo bon auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bon ñoo nuyu ñi teew fii yëpp di nuyu Abdoul Ahad moom mi waral bis bi euh, ak Dieye production suma xarit suma doomu ndey euh, di nuyu nag euh, Gris 2 ah, di nuyu Gris moom vraiment dama ko respecté parce que dafa am respect ci nit bi ma ñëwee léegi dafa jóg taxaw ñëw nuyu ma waaw wuute naa ak magam magam nag am na fu ma jaar ak moom workat la waaw moom ku am respect ci nit la man yaayam ci boppam lu tax ma respecté leen yaayam xam naa ne su ma bëree kurul faas man lay faral parce que Gris seen kër yëpp maa leen daan jaay ci leen waaw kon xam nga loolu démb lu yàgg la waaw mais nag làmb ji du yomb daf ma jaral daf ma jaral lu ne jële su may xale da ko tëgg mais jëlewuma ko xaalis waaw mais dama ko jëlee ngir sama place fi ma nekkoon ma ñëwaat fa waaw moo tax daal du yomb waaw du yomb waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di sant yàlla bu baax di julli si bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak bépp kilifa diine rek bu nekk ci réew mi di nuyu promoteur bi nga xamante ne moo tëgg làmb ji di nuyu sama adversaire grand Abdou Diouf euh, kon li nga wax rek combat ñun moom comme combat amuñu habitude di xool ndax kii day xeex wala day bëree wala day def lii ñun li ñu amal njariñ toujours rek mooy ñu pare fexe rek ba nga xamante ne li ñu soxla si suñu yaram yëpp am nañ ko après nag ñu dem lépp lu luñ fa fekk rek dinañ ko mën a gérer bu boobaa mais awma ci lenn lu may xel ñaar wala lu may bàyyi paka la dama bëre woon ak moom niil wala niilu maak moom yooyu yëpp fàtte naa ko man lu ma xës a paase rek instant yi man ci làmb benn défaite laa am mooy bi ma jugee li si sama kanam laa bëgg changer beneen méthode ñu gis beneen Gris 2 loolu moo ma intéressé. xam nga làmb dëgg la combat bee passé dama pertoon toog quatre ans waaw ma bëree euh, xam nga ma bëree Pakala daan ko bëree Bichri daan ko bëree Cek daan ko toog quatre ans ci la ma jox Forza. avant que daal man ak moom ñoo a bëre mais combat bi ci ci moom la yàqoo. xam nga mais ñun ay ay ay ay kilifa lañ parce que dañu toll koo xam nga toog quatre ans bëriwuloo dem nekk say business xam nga waaw loolu la donc quoi mais bi ma gëjee bëri yàggul mais làmb ji xam nga daf maa jaral daf ma jaral te bu soobee yàlla bu bis waa nañ xam ni Abdou Diouf ñëwaat na ok. waaw comme ni ñu koy waxee rek mooy presque li ma waxoon léegi rek laay waxaat man adversaire moom wax dëgg fa yàlla aw ma ci taamu aw ma ci tamit loo xamante ne rek damay dama ci xel ñaar parce que man fi ma xalaat ne moom laa war a def ci làmb ndax man fii wax bu ma nekkee ci dara fii wax am na ñu bëri ñu nekk ci sama kanam ci raw ma ci làmb rek pour man defaguma dara mbër la boo xamante ne ku du mbër mu ñuy fooyee ci làmb mosuñu koo gis ci biir làmb mu nekk fowukaay loolu yëpp préparé nañ ko te le jour ji bi nga xam ne ki ñu jël xam nañ ko incha allah am na ñuy wax rek euh, làmb moom garab la rek ñëpp ci kaw la ñuy fekkante boo seetee wax na ko léegi nee doon nañ bi dox suma ay combat ak moom avant muy bëri Forza nee na da ngaa daw non loolu ñun moom ku ñu xam xam ne du ñu daw mais am nañu ay kilifa dinañ ne tey combat parce que làmb dafa tàmmoon nit ñi toujours dañuy adressé mbër yi ñii dañuy wut lu yomb te ñun làmb bu buñ ci toll xalaatuñu bugguñu bokk ci benn loo boo xamante ne dañuy xalaat loolu te bañ demee tamit fas ne ñun kii la ñu choisir pour mu bëree ko ñu accepté loolu loolu moo tax mais ñun amuñu si choix benn affaire daal lañ waxoon te bëgg nañ yàlla dimbali nañu si mooy képp ku daan bëri boo dajee ñun du ñu yem ci daan la dinañ la defaral ba pare door la daal. waaw mais kii dafa di champion rek parce que man yàlla dafa def ni ñi fi tër naka ma jox mais ñun daal comme li Giri wax rek ñun ndamoo ñu yitteel te bu bis ba dina xam ni ab jur mi ndam moo ko yitteel. voilà wax bu bari moom jaru ko la. Abdou dafa am baat wax léegi maanaam tànn du yem ci daan kese maanaam dañ lay defar ba pare door laa daan kon maanaam moom xeex lay wax quoi. loo loo ciy wax. <laughs> waaw mais loolu la wax rek mais man bu bis ba dina xam ba xam loolu dina am na ko def rek. waaw waaw non combat bi li ci préparé nee naa ko daf ma jaral. parce que am na suma partenaire yi dans deux semaine damay voyage mais am na ñu ñuy waxtaanal su may partenaire yi ñuy waxtaanal xamaguñ ban dëkk lañ dem. kon xam ni combat bi jaral na ma jaral na ma di woo xam nga monsieur le maire Aliou Sall ñun ay doomu géejawaay la ñu dëkk te géejawaay ñun booy bu ñu bëggee bëre ñun la. nañ ko xamal ni ko combat bi combat la di woo ñoom euh, euh, xam nga di woo ñëpp daal. waaw combat bi daf ma jaral waaw ñun de wax dëgg fa yàlla ñu ñu xam dëggantaan xam nañ ne amuñu dara loo xamante soppeeku na si si suñu bopp ci wàllum doxalin amul amul dara loo xamante ne soppeeku na ci mais kon li nga wax rek mooy làmb moom des fois mën na am nga commencé. di bëre nekk ci benn méthode parce que léeg am na kenn ku ma ko doon wax ma ne ko tey man lu tax combat bi passé mu am werante ci biir paas lan laa ko jàppee parce que ba ma dalee bëre ba léegi mën nañu wax ne maa doon maa doon toppatoo sama bopp combat yi ma doon am mooy bëreeg ay Ablaye Ndiaye bëreeg ay Auguste yëpp mën nañ wax ne aw ay nit yu ma doon taxaw di ma taxaw dama doon dem rek ak sama ay taxale di dem di bëre yàlla di ñu suturaal am na nag foo xamante ne bu ñu fa yeggee pour man méthode yi dafa war a changer am ay nit yoo xamante ne dañ lay dañ lay taxaw te combat bi noonu la demee Père Tapha Gueye mooy directeur technique bi dañ ne ko amul ay dañuy dem voyage yi wala dañuy loo ci bëgg moom la ñuy def boo bëggee fii la toog préparer ko ba mu yegg boo bëggee tamit ñu dem voyage yi ñëw te incha allahu rabbi noonu lay demee. Hmm. waa dëgg la combat bi nag bi passé def ma ci lu war a dëgg parce que. manqué naa entraînement loolu dëgg la te fi ma daan dem bu bari dama ko dama ko safantaal boobu nag xam naa ma Mayel fa jaar. waaw noo xam nga rek ay mbir la daal. waaw mais bii nii bu soobee yàlla comme que des na lu bari dinaa def li ci war lépp te bu ma ñëwee dinañ xam ni combat bi ak bee passé wuti na. waaw man dama bëgg a jëlaat suma place dellu ci waat fi ma nekkoon. mais man yàlla baax na daal. waaw. benn defet dafa am suma jum ñaar ndam la faas. daanaka am naa fa six. waaye du micro waay am naa fa six ndam parce que daan naa fa Ousa ñaari yoon da am naa fa juróom six ndam laa fa am. allo allo DJ. DJ waxal bu baax. waaw ma ne daan naa fa Ousa ñaari yoon. waaw daan fa Ablaye Gueye. waaw daan fa Bichiri. waaw daan fa Gris waaw waaw. cinq cinq cinq combats laa fa bëre. waaw nee na cinq combats la am biir cinq combats nga am biir Fass. am ci quatre victoire ak benn défaite. non six combats. waaw cinq victoire ak benn défaite. mën nga wax li ma la Sow laa fa daan ñaari yoon. waaw dañoo bëri aller ma daan ko. waaw daan fa Birchili. waaw daan fa Ablaye Gueye. waaw. Euh, daan fa ñabali ñabali may bëri moom fa la nekkoon faas la nekkoon waaw ñooñu laa fa daan ngi dégg yàggul la yóbbu kii est-ce que ay waxi kese kese daan na Abdou Diouf mii ak imagination ak ñu ne la mag la. ay wax moom gisuma ci àdduna ku mu daan yow mii sax ay wax daan la da nekk rek ci li nga war a nekk Fass moom du problème moom ak Géejawaay Fass problème la ak ñëpp. ñëpp mooy mais mooy ñëpp mooy Pikine ak Géejawaay ak foo mën ci dégg dégg nga ci Fass moom nag. waaw loolu nous sommes seuls contre tous loolu ñëpp xam nañ ko ñun rax ñun njaaru ñu ñun kese la. yéen kese. ñun kese la ñuy ah, ñëw kii ñëw ñoom kese la non ñoom ñoom ñëpp. prix yëpp la ñu ba mu def li may wax yaa ma ko gën a xam. Eh, waaw li ngay wax yow kay. li ngay wax ak mais la koy wax moo koy xam. waaw man daal li may wax. mooy am na fa ay ndam. loolu ay bor la. six ndam. waaw am na fa six ndam. dëgg la nag mënuñu ko daal six fois. Ah. mais incha allahu rabbi li mu man moom de ma part la na nekk grand gentleman fay bor bi doucement. doucement waaw su ko bëgg nga fay doucement lu fekk. non man daal loolu laay wax. na ko fay daal li nga wax. su ko bëgg nga fay doucement lan ci fekk. ah parce que man moom du yàlla mais en tout cas combat la boo xamante ne revanche la kon ni mu ko waxee. parce que am na leneen lu mu def revanche la pour ñun te combat boo xamante ne tamit dañ cee war a ñëw pour wane